Assalamu alaikum. Good morning, Gambia. Good afternoon to other parts of the world, and good evening to other parts of the world. It's yet another beautiful Friday morning, and you are watching the breakfast show. My name is Andy Ferreira, as we always do. We are back again in the studio to bring you um, topics to discuss here on the platform, but I'm never alone in this program because I'm always with my colleague Mariama Ba And as we always do, again today we will pick a topic and then we'll discuss about it. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen képp nga xamante ne yaa ngi nekk di seetaan ci jamono ji eh, di wax leen rek ne dal leen ak jàmm fii ci programme bi ñu xam ne ci Breakfast Show fii ci LSTV 1 eh, comme niñ koy defee alterneng àllarba ak alxamis ak ajuma ju nekk ñëw fii andi leen ay tomb waxtaan yu jógee ko ci. tey ci xibaar yi teg ko fii ci taabul bi nag waxtaanee ko su ko defee rek balaa may um, wees much of the time xaaral ma jox nga xamante ne mooy suma naataango bi rek bu nuyu ak uh, askan wi su ko defee rek uh, ñu xuus ak programme bi Mariam. waaw ah, dañ leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu koo xam ne yaa ngi bàyyi xel LS TV one ñu waaye di mën a déggee ay bëtam rek. Ah, ñu ngi laa nuyu di dalal ci programme bi di breakfast show ñu koy amal nag altine bu nekk. àllarba am li nga xam ne moo di ajuma tey nag uh, di ajuma di wax juma mubarak uh, ci jullit ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm salaam tawfiq ak sutura bu saawaan bu baawaan fépp fu ñu mënti toog jàmm di ñu fekk ci bés bu yàlla sàkk uh, ñu ngi jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel fu ñu waaye di leen ci ay bëtam rek ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di la tatagal waaye tamit Eh, jërëjëf bu baax a baax comme ni ngeen ko déggee rek moom Mariama Bass mu naataango su ko defee rek duñu waste much time um, before wasting much time we will go straight to the front page of the standard newspaper today we only have the standard newspaper with us today so I'm going to read the front page and then we get into the program today um, the top stories on the um, standard newspaper TRC recommends amnesty for Sana Sabali denies ex-vice president Njai Sebi um, doctor who performed autopsy on Fadera testified at inquest um, Gala, Galga asked President to stop interfering in local government affairs and Jimara case, Jimara cast case withdrawal. Um, trafficked schoolgirl said she was serially raped. Um, those are the top stories on the Standard newspaper. Community affairs. Fessa Eh, dañooy am ñaari kayitu xibaar waaye tey nag benn lañ fi am muy Standard newspaper te loolu mu ñoo doonoon li nga xamante ñoo gën a fes eh, ci kayit boobu di Standard newspaper su ko defee rek ñu xuus ak programme bi gis ngeen li nga xamante nag mooy topic tey bi ci screen bi eh, ñu binda ko mu di li nga xamante ne mooy unemployment ñàkkum xëy bi nga xamante ne nag am na fii ci biir réewu Gambie waaye sax ci àdduna woon nga képp ak foo dem mun ñu koy joyte waaye bu nekk ci Gambie jéggi na dayo jéggi dayo bi nga xamante ne nag Euh, foog nañ wala yaakaar nañ ne war nañ koo teg fii waxtaanee ko ba xam fan la ñu teg suñu tànk euh, Mariama euh, loolu mooy tombu waxtaan bi tey mu di unemployment rate in the Gambia. unemployment rate in the Gambia mu nekk mbir moo xamante ne bi mbir mu doy waar la mbir moo xamante ne bari na lool fii nii si biir réewum Gambia. rawatina doomu Gambien si bari di ko dunda rawatina ndaw ñu bari tamit di ko dunda. jamono bii nag ñu nekk bu njëkk ba dañ dee wax ne bu amul ñu ne ndaw ñi ñu bugg xëy wala ñoo bugg a dem liggéey waaye ñi nga xamante ne ñoo amee bërëbu liggéeykaay tabax ko teg ko fi wala taxawal seen bërëbu liggéeykaay di fa jël si ay ndaw ñoo nekk ñu sew jikko sew jikko yoo xamante ne ni euh, duñu téye ndaw si rawatina it tamit duñu fay ñu fay bu war ndax yaakaar naa ne Gambie weer bu dee fayatuñ ci salaire léegi paas nañ koy joxe paas nañ koy fay déedéet du fayatuñ salari paas nañ koy fay. Ah, xam nga li gën a li gën a neex ci àdduna mooy moo tax Sénégal foofu nañ ñu rawee. Mhm. Ah, because foofu boo jëlee exemple seen fii li ñoo fay fay because soo seetee fii nii exemple ku ñoo fay eight thousand dollars loolu boo ko xoolee Sénégal mën nga wax ne cent mille la mhm. moo nekk seen cent mille foofu loolu te loolu.